Thank you. Ravi de vous retrouver sur sendirect.com, amis internautes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission hebdomadaire Hebdo Culture. Alors aujourd'hui, euh, comme d'habitude, nous recevons un grand nanan, un grand artiste qu'on ne présente plus au Sénégal. Vous allez le découvrir euh, plus tard, mais sans plus tarder, place maintenant à l'actualité culturelle de la semaine. L'actualité que nous démarrons par la littérature, l'écrivain sénégalais Mohamed Tambougar Saar a été retenu dans la deuxième sélection du prix concours 2021 pour son roman La plus secrète mémoire des hommes, a-t-on appris mardi de l'Académie du prix euh, concours. L'ouvrage du sénégalais figure notamment dans cette deuxième sélection composée de neuf euh, publications, parmi lesquelles Le voyage dans l'Est de Christ Ango, la carte postale d'Anne Berest, en front de Salo, de Sergio Chalando euh, et de Sabine euh, wes West euh, Pizer. Le lauréat 2021 sera connu le 3 novembre 2021. Parlons toujours de littérature. Mamia Cindia, âgée de 22 ans, a annoncé mardi à la PS avoir publié aux éditions Le Lys Bleu en France son premier livre, en recueil de poèmes de 70 pages consacré à l'amour, à la liberté, à l'espoir, à la mort, à l'amitié et au pardon, l'écrit du c'est une arme, une source de, libération, de dénonciation et d'espoir pour tous. Elle traite d'événements vécus par de nombreuses personnes qui n'ont plus le courage de vivre et de profiter de la vie, a-t-elle dit. en commentaire de son ouvrage dans un entretien. Par ailleurs, le recueil comprend 29 euh, poèmes qui évoquent des personnes chères, sources d'inspiration, etc. Le film Atlantique de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop sera projeté à l'ouverture de la 20 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 16 au 23 octobre prochain, ont annoncé vendredi les organisateurs. Cette projection se fera en présence de l'équipe de réalisation, précise-t-il sur la page officielle Facebook du euh, FESPACO, a rappelé que la réalisatrice Mati Diop est membre du jury langue fiction de la 27e édition du FESPACO, présidée euh, par le cinéaste mauritanien Abdelrahman euh, Sissako. C'était à présent l'actualité culturelle de la semaine. Place maintenant à notre invité du jour. Il s'appelle Abdurrahman Sek, de son nom d'artiste Leka. Leka, ravi de te retrouver sur scène direct. Rawatina ci plateau bi de de Culture ñu ngi lay dalal de am mbégte jàkkaarloo ak yow. waaw maa ngi leen di nuyu invitation bi mais am plaisir bu ma franchement parler Je di leen déglu ci questions très bien euh, comme ni ma ko waxee artiste bu kenn dootul présenté ci euh, file ci Sénégal euh, nga def say preuves Yag lolu ci art est-ce que tey jii mën nga ñu rappeler ça à peu près say début ci art pour ñi nga xamante ne xamuñu la. waaw début bi mën naa ne mën na bañ a sori sori loolu parce que nekkul lu lu yàgg noonu tax ñuy wax parce que mën naa ne ci 2010 bi ci la ci laa ne waa est-ce que ma war ma mën a nekk artiste ci laa ci commencé di débrouiller ànd ak samay nit ànd ak euh, benn groupe boo xam ñu débuté na ensemble mais peut-être bëgg-bëgg yi ñoo bokkul woon maa doon nekkoon ci football bi mais nekkoon ci musique bi aussi groupe bi comme que gisoon nañ ne man maa ci gënoon peut-être pas-pas ma ci amoon ñeneen ko ci woon moo finalement groupe bi gars ñeneen ñaari bàyyi man ma nekk ci après bon groupe bi euh, Three Boy la tuddoon mom lañ nekkoon ba quelque temps ñu génnee foofu ben single dem ak mom touti presque single bob motax euh, wa secteur bi commencé woon ñu xam moy son groupe bi ñu dem ba ci biir mm, ay 2011 ci la def son premier son solo bon so nak motax quartier bi yep xam ma ba dugg Grand Yoff yeneen côté yi à travers son boobu Fly si game la tuddoon mm-hmm. ba. programme yi doon am yëpp euh, fépp fu ñu mënoon fépp mu mënoon ne gars yi mënoon jëli pour ma ñëw jouer parce que tellement que xam naa énergie ma doon àndal ak ni ma doon jàpp bi ma doon dégager sur scène ak son boobu ambiance bi ma àndal demoon ba gars yëpp maîtriser ko woon moo tax programme mu mënoon am gars yi noonu déplacé wu ñëw jël si ma mais moment boobu jëlee moon musique au sérieux parce que jusque maa ngi nekkoon booy maa ngi gis neex na gars yi may woo gauche à droite xool xoolu sama ëllëg la laay def xoolu ma woon beneen son am na ëllëg quoi. jusque maa vocaliser vocalisé son bobo ba dem ben temps après ma arrêté musique bi période période 2012 bi après euh, ba 2012 2013 après me reprendre je euh, j'espère que ma ñëwaat ay 2014 2015 wa seen lyrics ñoo gis ci benn concert ma joué pare ñu ñu jox ma sa ñu jox ma numéro mais jox ma ñu jël sama numéro. mais souvent comme su ma daan joué ci programme yi saa yi ma wàccee dañu naan dañu jël sama numéro ñi naan naal defal lii xam nga noonu laa ko banaliser woon finalement gars yi doon ma woo chaque jour waa ah, seen lyrics daaw naa gis seen appel mais daaw moon jël parce que pare moon pour dugg ci musique bi carrément ñu may woo di ma woo di ma woo ba benn jour kat defuma dara ay 21 heures ma yónnee le message ñu woo ma ne ma dañ la soxla ma ñëw après ñu ne ma. gis nañ sa profil ak say style musique bi ngay def say dégagement say jàpp ñun mën nañ la produire si même bu dee film nga bëgg a tourner sax xam nga rek gars yi bu ñu la bëggee. c'est vrai que da nga am flow sax. même bu dee film nga bëgg a tourner sax ñun pare nañ pour produire la quoi wax ak man yooyu ba ma dugg ci label bi liggéey ak ñoom quelque temps après mais doxul quoi mooy sama mhm, mooy son freestyle bi nga gisoon sànq ma def ak ñoom son boobu ñu dem après man dem naa ba gis ma ci sama bopp et man du tricher quoi luma ma gisul sama bop rek dama kay woné après finalement ma récupère samay projet arrêté arrêté de demaat quelque temps gisante waat ak euh, The Best momit ñu tok waxtaan mu wax ma comme idem rek comme gars yi wax wax ma ñu commencer di di job mais au début sax woo nañ ma ci ben jour tabaski ne ma instant bi dama bëgg nga signer sama label affaire yooyu noonu ma ne ko moom man pare wa pour signer ci label quoi man je préfère que may joobal sama parce que dama nekk artiste bu free boo xam ni. bëgguloo bëgguloo ko la tënk daal bëgguma ku ma tënk. Mhm. ci sama style vestimentaire ci ni may exprimer woo ci ni may dégager woo bëgguma ku ma tënk. Mhm. sama son lu ma ci sentir man dama ko ci def quoi te bëgguma ki naa man nii ngay defal ne. ci loolu sax de best bi nga rejoindre euh, mun nañ ñu bëri ci lañ la commencé à découvrir à 100 rawatina sa single bi nga xamante ne def nga ko jongoma. son jongoma presque amna son yu bëri yo xamni dama leen defone ba pare parce que man duma bind ay morceaux quoi presque su ma demee ba studio ci laay def sama enregistrement genre mais aw ma habitude di bind ay morceaux amna idée ba pare ñëw ne ko booy mu ne mën a ko son bo xamni idée bi jongoma la quoi def ay couple ni mu ne son bi dof na mané ko. mu ñëw gaale mu ne ma kaay ñu testé ko def enregistrement bi léegi fa laa def enregistrement bi bàyyi. sans pour autant nga bind ko. non duma ma bind ay son. da ngay ñëw rek taxaw ci mic bi rek improviser. peut-être damay am ay yu may njëkk am ba pare après su ma demee damay ñëw rek exploiter. mais raa nga gis artiste boo xam du bind cest à ko ñëw rek euh, à l'œuvre comme ça nii. mais su ma su su su ma sayoon may bind parce que parce que dafa am yenn son yoo xam ne dama leen di def ba pare ba fàtte leen. il suffit ma toog ay 3 mois 4 mois ma déggaat instrumental bi ci laay fàttaliku ni man bindoon naa genre son bi te loolu peut-être boo gisatul son bi ça veut dire que perte nga ko mais bu dee da nga ko bind nag loolu mooy sa avantage man man ñuy bind dama leen ñee parce que man su ma demee Big Ak Foy su ma téewee su ma commencé bind benn idée du ñëw su ma su ma su ma tiimee Foy yor Big su ma naree bind benn idée du ñëw mais il suffit que ma toog yoruma Foy yoruma Big dara. ci laay commencé inspiration yi di ñëw may am quelques damay woote rek booy am na lu ma fil studio mu ne ma ñëwal su ma ñëwee ma dugal dugal ne ko fii laa yem wala parfois ma continuer parfois ma bàyyi ko foofu quelque temps ma woo ma téléphone ma booy li nga jot a def naay sant doo ñëw yeggali ma dem muy son jongo ma ak son fëlaale ñun ñaareel lañu fa jot a job te son fëlaale bi moom moom moom moom idée bi moom moom bi dafa dafa ma woo rek ne ma am na benn son bu ma def fii refrain. say style de flow rek laa ci laa ci sentir quoi ni ngay rabeeg sa genre jab bi ma ne ko d'accord ma ñëw ci guddi gi mu wan ma ko ma def fa benn couplet après dem ñibbi ñu toogaat quelque temps ma demaat studio def deuxième couplet bàyyi foofu comme ñeneen son yi rek parce que son jongoma bi xumaan presque dama ko enregistré bàyyi ko fay deux mois trois mois xumaan xumaan grand bu baax moom ma message ne Malika te son jongoma bi rafet na trop affaire yi nii ma ne ko ah mu ma son bi foog nga vidéo ko foog nga def ko li bala bobu tamit biibo biibo bu nek ci Leuz ne sa son joo nga way dama ko bëgg vidéo affaire bi ngi di ci wax quoi mané bon pourquoi pas. ah c'est vrai que dafa nek son bu neex ba pare son bi tamit gis nañu atteindre na ay vues yu cool ci côté euh, vidéo bi côté YouTube d'autant plus que ne vidéo bi ni ko tourner tamit dafa dafa dafa dafa am style bu particulier pourquoi sax nga def am choix ou def genre vidéo bobu boobu tamit aussi euh du sama xam-xam. Euh, réalisateur bi moom moo moo ko gisee noonu tu moo ne ma vidéo bi comme que comme gars yi dañu wax chaque jour rek gars yi bu ñu ma gisee souvent duñ ma foog sénégalais mu ne ma lii da koy indee ci village ñu tourné ko noonu ba pare nga xam ne gars yi dañ xam ne lii kat mooy loolu. fan ngeen ko tourné. Joal ñu dem tourné ko foofu après beneen partie bi ñu ñëwaat ci ville bi parce que jusque ñu ware ni. comme si que bu dee bu dee bu dee jongoma nekkul ci town bi rek la am am nañu nekk ci village ñoo xam ni dañu jongoma dañu mën nañu mën nañ toppatoo seen góor quoi comme jongoma nekkul ni dañ ko wax ni jongoma comme da nga war a nekk benn jigéen punkal genre moo tax moo tax bi mën nañ jël gel bu luur mën nañ jël gel mais dañ jël gel boo xam ni taille normal la yor quoi nekkul ni dañ leewan ni moom image moo war a jongoma mais gestes yi muy def ci biir yoo xam ni maa ngi nekk samay copain mi ngi may def ay ay ay côtes yoo xam ni pour nous weetoo man ak te sommes ma les jouer ñëpp kenn kenn sibul ci loolu lañ Les quoi jigéen maanaam ci say sax mën nañ ne dafa jong <laughs> loo ci raboon sax ci jongoma bi dama na xool bu su ma la gisee damay sekki da ngay xel ñu neex foo dëpp ba dippi ma tamponné validé fóotal la passé la nangu sa parité sang la famp la dampe la karité yóbbu la ndax danga ko mérité yaa taaru daagu yaa neex a xool di nga ma jural bàyyi ñas ndax dangaa rafet xool yaa rafet yaa bëri jàmm yaa neex a xool jekk taxawaay kanam gi ne fàng bët bi ne weer bu fenk ñu nekk vraiment euh, son bu neex pour ñi nga xamante découvrir ñu ko sax occasion la ngeen dem découvrir vidéo bobu jongoma leka def ko mi ngi disponible sur YouTube mu nek vraiment way bu neex avec une belle euh, vidéo à l'appui euh, leka ginaaw jongoma bobu nga def ko mu relancer waat bu baaxa baax sa carrière ñu bëree boo ne Lecka automatiquement seen xel dem ci jongoma nga jot ci Euh, def ay spectacle yu bëri tout récemment rek am nga benn spectacle boo ci dëgmaloon pourquoi sa choix boobu def spectacle boobu ak fi jamono toll ak jamonoy coronavirus beeg bi. bon comme comme comme gars lu ñu koy waxee gars yi ma naan euh, comme ni ma koy waxee chaque jour dañ ma naan maay jàpp artiste bu ndaw laa quoi dama naan artiste ndaw presque mën naa ñu ci yëpp ay fans man ci laa bokk parce que même même même su ma programmé woon cinq jours su ma tëggee dafay fees. loolu moom dëgg la. tu vois loolu moo tax euh, programme woon nañ benn programme jàppoon ko almadi boobu presque dañu demoon ñi ngi ko ñi ngi ñi ngi ko jàpp ay un mois et quelque temps mais dañ demoon ba dañu jaay ticket ba ba ci guddi gi ñu tiiraat ba jaay ba xam ni ñun ñi lu ñu jaay dafa ëpp te tele sorte que xamoon nañu ñëpp bu ñu fa dajee problème dina am mais yàlla def ko programme boobu mu juloo am Dream nañ ko doon defee 12 décembre bi programme bi ñu mujjee jàpp deux semaines lañ ko jàpp te dafa fees ba nit ñi dañoon jënd ticket ci ci buntu bi lañ doon yem comme gars yi ñu ko waxee entrée mille francs la woon xam nga entrée jamono ji 5000 francs c'est pas évident nga def ko mu fees quoi en tant que artiste bu ndaw tamit mais feesoon na ba nit ñi. ci ndaw yu bëri sax de rappeurs yi ba ñuy tëgg ay 1000 francs la ñuy tëggee 2000 yow rek yaa ciy tëggee 5000. ah c'est est-ce que nekkul ni li ma li ma ci def rek moom muy parce que parce que artiste buy jouer live peut-être euh, pour nga gis ko bëriwul quoi. surtout ci rab bi je me rappelle euh, euh, ki di Fata beaucoup de ci rappeurs yi njëkk def spectacle grand théâtre def ci li nga xamante ni di live. D'accord. man man sama bopp 100 live la ko def jël orchestre répété ak ñom C'est tellement que ñom nek nañ ñoo xamni euh, ay ndaanaan yu mag mag parce que man ak orchestre jigéen ñu doon liggéey amoon nañ contrat mais finalement ba ma waree comme ça concert bu waree ba mu waree nekk samedi ci mardi bi. laa am ak ñoom benn contretemps boo xam ne ça ko dire que ñoom ñu ma mënatuñu ma tëggal doon léegi mënu ma annoncé ni damay def programme samdi ba pare hmm, ñëpp jënd seen ticket ba pare ma ne man du ma leen jouer live finalement côté boobu métti woon na trop te jaaxle woon naa hmm, mercredi bi mu dese sama deux jours ma war a organiser sama répertoire ma war ko ma war ko répété ak live mu gën a compliqué. finalement ci vendredi laa jot a répété te 4 heures de temps laa répété 4 heures de temps kese laa répété sama répertoire yëpp te morceau yi ba ñu ñëwee ci programme bi dañoo joué son yëpp normal macha allah ñëpp ñëpp kontaan nañu amul benn lu coow loo xam ni bon mën naa tamit ndimbalu yàlla la. ko o liggéey ak orchestre jigéen ñi. non finalement ñoom tëgguñu ko beneen orchestre laa mujj engagé beneen orchestre laa mujj engagé man ñoo nag orchestre jigéen ñi presque dañu waroon liggéey mais tamit. mi ngi gis affaire bu rafet ci sama diggante man ak ñoom te déggoo woon nañu ñu ngi doon liggéey macha allah te liggéey bi yamul fii tamit. yow nii danga teg sa groupe wala booy booy def booy def live dangay da ngay woo ñenn ci artiste ñu ñu accompagner la. waaw da leen da leen di woo artiste bu nekk da nga koy kon non moom ma groupe parce que artistes yi moom peut-être instant bi bu fekkee amoo moyen bu dëgër mënoo moom groupe parce que bu dee groupe bi bu dem bu demul xari matt yaa koy war a jox boo jéem. mais bu dëgër léegi puisque yaay produire sa bopp yow tam nag. non du moyen bu dëgër sax mais dangay ngay takkale rek parce que artiste bu nekk bu ñu ñëwee transport lu mu ndaw ndaw bu ñu répété nga jox leen mille bu fekkee 5 5 musiciens lañ wala 6 ku ci nekk boo ko joxee ay jour nga jox ko mille jours yi nga ne ko temps caché nga koy fay xam nga te te bu du chaque jour ngay tëgg munoo munoo moom groupe bi quoi. moo dama leen bàyyi ñu libre bu ñu soxlaa bu ñu kiyee ñu ah lii la war a fay ku ne mooy xoolal li la war a fay. jox la sa transport après lu ñu mën am tamit mooy loolu quoi parce que musique moom daanaka lu ci lu lu ci nekk instant bi neex-neex bi gi yëgaguma ko quoi malgré que ñu may ñu may suivre di ma bëggee laa bëgg rek chaque fois ñi kontaan mais bu fekkee xaalis moom.

waaw man comme ni ma koy waxee chaque jour rek man bëgguma di di tënk sama bopp ci dara gis nga peut-être am nañu suñuy suñuy suñuy suñuy instru yoo xam suñuy suñuy mélodie yoo xam ni peut-être yeneen dëkk yi buñ ko amoon ñoom dañ koy exploiter ah. eh, quoi xam nga am na benn film bu fi doon daw Black Panther baaw ma lañ jëli pour mu defal leen yenn kii am na yenn ya parti yoo xam ay tama lañ ci def parce que

mënoon na jël ay Bugatti Lamborghini wala Ferrari def ko ci mais je préfère jël car rapide def ko ci waaw parce que. ci pochette bobu sax lolu sax bëgg na nga gën ci insister euh, parce que yang koy yang koy junj léegi choix wu jël car rapide car rapide ku ko xool xam ni euh, dafay dafa nekk bokk ci identité yu bu réew mi nga jël ko def ko ci sa ginnaw pochette nga taxaw car rapide bu nek derrière. voilà loolu loolu may wone ni mm, lepp lu may def man amul ma ci delu ginnaw man lu ma fil pour def ko rek sénégalais laa man sénégal laa am mm, su ma sentiréw ni xaw ma riiti wala bongo wala dara su ma ko sentiré sama musique dama ko ci def parce que musique hip hop bi peut-être yemoon na ci ñaari euh, yemoon na ci caisse claire ak quelque vent mais léegi mélodie yi ñu ngi ciy gën a ñu ngi gën a yokk mélodie yi mélodie nga ngi gën a am doole mais pourquoi pas ñag yi bu ñuy def seen mélodie ak ñeneen ñu ñu bañ jël suñu bos ñu ñu ne boo ko defee féeg nga quoi et pourtant Akon mi ngi ñëw moom ak Youssou Ndour seen son bi mbalax la mais avant ñom gis nañ Fata tamet ñoo fi jëk a imposé li nga xamante ni rab bu and ak mbalax wala bok bok na ci. si parce que mu naan ci moom la ko njëkkee gi sax mais euh, mais imagine toi supposons bu ben artiste jógoon États-Unis ñëw jël ben mbalax ñëw rap ci bu kenn ko traité de fake mais il suffit que Fata dëkk na fi def na ko léegi moom la ñuy traité fake quoi parce que day affaire bo nee ba ci bi day melni complexe lay doon wala ñak xam la wala do comprendre quoi parce que musique mom nekul lu metti hip hop bi euh, ñun ko ñun bu dafa ñëw bu fini. ñun mën nañ correspondre ak suñu culture quoi ak suñu euh, je sais pas comme entertainment bi suñu génération quoi mën nañ ko ci boole mu neex ambiance après mu parce que musique légui nekatul mënoo ci yeetee ba ba ba ba wax fi loo xam ne keneen waxu ko. son bu neex la ni ñi di laaj la. voilà gars yi instant bi dëkk bi métti na presque son boo xam ni mën na la xaw a fàttali yenn problème yi nga déglu ko TikTok ko wala whatever def ci leneen loo xam ni c'est mieux quoi parce que instant bi nii jamono yooyu toll foo xam ni ku nekk mën nga jàllal sa message. mu nga toog euh, courant bi cher doo xaar rappeur bi di la ko waxal yow il suffit nga jël sa téléphone taal ko def ko direct euh, dund bi cher na Macky Sall waxu fi li waxu fi le boko partager partagé koy partager kon soxlo to rapper bi di la ko waxal tu vois motax euh, il faut ñuy xaw ubbi xel yi tuuti xam musique bi dafa am niveau bo xam da ko dépasser bu baax baax nekkatul ay concurrence nekkatul xex nekkatul ma def li ma def le ki lee la def ki lee la def non non amul solo na ku nekk def li nga war def rek man loolu laa gis quoi. mais ci loolu sa gis-gis par rapport ak rap bi jamono jële ci Sénégal gis nañ li na tout récemment rek Arlo Brick ba son bi di Mawti gis ku interprétation euh, rap dafa laaj quand même cest c'est-à-dire dégg peut-être ñi la mais peut-être ça va au-delà de euh, ñi Euh, ñu bëri di ŋàññ li nga xamante ni moo di langub hip hop bi fii ci Sénégal sa gis-gis par rapport ak euh, taxawaayu ñenn ñi ak texte yi nga xamante ni say moromu rappeurs yi ñu ngi koy bind bu ñu jëlee exemple ñu mel ni ñoom Akhlou Brick mais loolu c'est normal parce que parce que am na euh, xam nga son bi ñu ngi def ñaari couple yëpp mi ngi normal mais il suffit que deuxième couplet bi bu ñëwee normal comme comme troisième couplet bu ñëwee normal comme troisième couplet bon doo dégg son bi. xam nga maanaam peut-être mawti boobu ñu ci wax peut-être moom moo tax nga jot ci son bi mais bu amul woon mawti boobu ñu ciy wax son bi doo ci jot am na yenn yoo xam ni euh, boo paree pour boo paree pour dégg ko rek pareel pour dégg ko te gëmmu ñoom am na commentaire yoo xam ne duñ ko liir duñ ko déglu parce que xam nañu retour retour bi lañ ci fekk mooy son bi li lañ bëggoon nit ñi wax nañ ci mais nit ñi wax nañ ci ñoom seen liggéey jàll na macha allah peut-être. Euh, yéen fi nekk li ci wax mais ñoom pare nañ ci ñoom ñu ngi ci leneen nekkul man nekkul lu métti quoi man ci sama gis-gis parce que c'est normal seen liggéey la di lañ bëggoon nit ñi wax ci nit ñi wax dañ ci jeex na am na yenn wax. jàpp nga ni tamit rab bi mu ngi dox ci Sénégal les cas honnêtement parce que gis nañu léegi euh, rapport yu bëri maintenant boo leen laajee dañ laan Euh, duñu nangu affirmer ni léegi que ni rap kese la ñuy def nee naa ñoom léegi musique la ñuy def wootu musique la ñuy def loolu lañ lay wax euh, musique bi ñu rythmé ko de telle sorte que maintenant cest euh, fi ma bëgg wax mooy li leen di soxal rek mooy ñu mun a exporter seen musique jaay ko mais rap euh, en tant que tel rap gis ci euh, PBS wala ñeneen ñeneen passe est-ce que gis nga ni tay ji dafa soit ko wala pour exporter musique. non bu bi ngay bëgg gis ko parce que musique dafa comme iPhone à chaque moment da a une mise à jour parce que mise à jour mooy façon instrumentale yu ay trap day ñew ay euh, mm, drill day façon musique bu de fay ñew tu vois kon mëno japp ni comme musique bu yag bi ci nga bëgg vocaliser wu euh, di ci rabé di non bon temps bi parce que musique euh, musique ak mode ñoo euh temps bi nu muy nga ak parce que chaque instant américain chaque instant nga ne musique bi moo génn musique bee moo génn genre bi moo génn noonu nga war a demee Jay-Z il paraît que dafa am benn fansam mu ko soon gis ne ko ne ko man da dafa am sa sa album yu yàgg yi ñoo ma gën a neex quoi mu ne ko soo soo soo soo bëggee ma ma ma rabal la comme rab bu yàgg bu ko xaar ci man dama nga jënd sama album bu yàgg parce que nekkul di xaar temps bi quoi temps bi nu muy évoluer ñoom noonu la ñuy évoluer mom day sol ay costume day day correct jabaram tu vois mais euh, si artiste artistes yu dañuy sol costume dañuy correct parce que non parce que mm, façon musique bu ñuy def la def non musique comme comme téléphone la rek nu mise à jour et yow à nga wara à jour sa xam la xew ci dëkk bi genre musique mo am genre mélodie genre mais vocaliser wu ci bu bi passé na ba donc mënul mënul amat mënul ñëwaat. mënul ñëwaat c'est vrai parce que euh, li nga wax je euh, showbiz bi je c'est-à-dire da ngay da moderniser wu ak li nga que c'est euh, c'est tellement vrai mais fi ma je waxee fi ma doon fi may fi may insister que dañoo gis peut-être si yi je or la fekk musique bi changé et tout mais gis peut-être ñenn ñi seen rab ci la gënoon engagé wu mais maintenant flow bi flow bi flow bi kese. mooy comme ni ma la koy waxee rek ñu ci vingtième siècle siècle lañ nekk moo tax ma ne la xam nga ñoom dañu doon jékki-jékki naan ah nguur gi nee na lii nguur gi deful lee xam nga di ci rab yëpp ci ci loolu la doon nekk quoi ay kii pour la mu wax kii kii pour wax moo tax léegi jamono ji kenn xaalatul rappeur pour mu waxal la ku ne mën nga defal sa propre vidéo génn waxul la metti la preuve événement yi fi xewoon mars dernier gis nañu rappeur yu bëri yu génn def ay son ko mel ni Dip ak Ngaaka mais ay lekkaak yu ni mel gisuñu leen ci boy pourtant ay citoyen ngeen ci réew mi ngeen bokk am ngeen am ngeen ci part de responsabilité ay porteur de voix ngeen ba ngeen wax dañ leen dégg pourquoi ba loolu amee kenn déggul nga def ci benn son yow it mais lu lu lu lu ñëpp def mais coronavirus bi def nga ci son defuma ci son parce que ñëpp def nañ ci son mais les gars ñëpp def nañ ci son warul tax yow nga ma ci def son non def nañ ci son ba ma jot ci keneen ak keneen na tamit ma ci def son nit ñi mun ñu tëb def benn loolu day mel ni day day mais sa fans yi xaaruñu woon loolu ci yow wala. ma def naa sama vidéo daal partagé hmm. waa mais san ne vaut pas la peine que c'est forcément que damay def son comme ñëpp ñëpp génne nañ son ma ne non baa ma génnee son hmm. man peut ku nekk sa méthode bi ngay liggéeyee quoi. Hmm. ku nekk sa méthode bi ngay liggéey mais man. yooyu nekku samay délit quoi ay Sénégal lay football ñep def nañ son Sénégal bàyyi ma def ko. ki day def non. D'accord. lolu ce choix là, ça avis et puis on respecte mais pourquoi fëlaale parce que fëlaale bi tamit à part jongoma fëlaale bi tamit jox na coow. Euh, comme ni ma ko waxee fëlaale bés the best mom moom son bi mo defar instrumental bi dafa wo téléphone ne Boy, amna ben son bo xam bo tégué sa flow dina toj etc. et wax ñëw ma déglu couple man musique instrumentale moo ma sonalul quoi nu mu mënti melee dama ciy rab même tama kese boo ñëwee sama programme bi passé tama kese lañ doon teg ci laa doon rab instrumental lu ma quoi ba mu ñëwee wax ma ma def si ñaari couple pare ci mu ñëw jël vidéo bi vidéo ko après ñu ne ci lenn. ci loolu daal ci la falaale bi juddoo. ci loolu daal ci laa ci ba def pare ci. falaale bi am na clip. amna vidéo am na vidéo zebes moo def moo def euh, son bi moo def vidéo bi. jamono gi fan la ñu war a mën a xaar euh, Lecka en terme de perspective. munoon bu ma kenn xaar fenn. ah loolu duñ xaar fenn. <laughs> man fu ma. fan si yaa ngi toog di seetaan di xaar di xool fa fooy fooy fooy génnaat. man boo ma xaaree fii feneen laay fël man bu ma ma kenn ma kenn xaar fenn c'est sûr lu lu wóor ba ba leer mooy dinaa indil son yu nice naa indil vidéo yu nice loolu moom mën naa leen kàssuré mais bu leen ma xaati musique bii di fuñ ma xaar ma fël fa ca des. te te yee yee jongoma lañ gisoon mais yii di ñëw xool ñu sax jongoma nu ñu sax moroomu jongoma kon mais yaa ci yaa ngi ci ci liggéey bi déjà. ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax a baax parce que boo gisee euh, peut-être ci site internet yi bëri woon samay sorties yi ma doon def mais boo gisee ma toog euh, nangootuma génn parce que ça fait deux ans génnewu ma clip génnewu ma single génnew ma daal ça fait deux ans. maa ngi toog rek di liggéey peut-être bu lii la ñuy waayal bu génnee incha allah ñëpp nañ ci jot parce que même album bi sax mi nga doon yegg fu sori mais mais peut-être corona bee ko laal parce que euh, maxu suba ñu ngi ci doon liggéey lu am solo parce que moom ñu njëkk soutenir album bi ci la bokk avant muy génn moom moom waroon yóbbu ma def euh, Dakar Arena euh, fa la ñu waroon defee conférence de presse defoon nañ ci waroon nañ ci def communication boo xam peut-être. waroon na weesu niveau bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp sax mais comme que yàllaay dogal veille bu mu waree génn ci la corona bi am finalement comme que diggoon nañ ko fan si après dañ ko mujj may gratuitement benn site internet moo mujj def ak ñun contrat jël ko def ko ci site YouTube am benn contrat de un an xaw na mun naa jaar ci tour bi pa pas. waaw jàll si. la Pikini TV ñoom ñoo jënd album bi def ko seen chaîne YouTube ñun ak ñoom ñoom contrat après ñu maye ko quoi. mais peut-être fi mu jaaree bu fooroon jaar peut-être bon dooroon na dépassé fii quoi mais comme que échoué nañ foofu noonu ñu ngi jéem a xoolaat lépp lu ñuy fi lépp lu ñuy génneewaat mu doon loo xam ni euh, benn gàllankoor du ci am parce que yi moom bu faree am ñaari bu amee ñaari yoon rek maam mu musiba lay doon moo tax ñu nattaat bu baax a baax balaa ñu génnewaat leen. laataa ñuy euh, jeexal li nga xamanteni ni di suñu interview euh, leka euh, sa gis-gis par rapport ak tolluwaayu mbass mi ci réew mi parce que ba tey jeexagul te handicapé na len bu baax a baax yéen artistes yi. non mbass mom peut être bu ñu waxee dafa melni ci ci ci man lañ ko yewal quoi parce que. ndax jamono ji bi ñew da nga nekkon vraiment ci say projet vraiment dama nekkon ci ay projet euh ay ay ay programme même programme 31 décembre euh, avant moo ñëw maa de premier pas RTS direct ñi ngi woon ci lancé bu normal boo xam ni euh, peut-être deux mois wala trois mois lañ ci waroon teg rek lépp kii quoi mais finalement ba mu ñëwee après ci veille album beeg yëpp la yàq yëpp ba ma waree programme waat Almadies 12 décembre ba ñu waree tëgg mm, mu war a nekk samedi bi vendredi ci 22 heures lañ ma woone arrêté nañ lépp mu doon loo xam ni loon na ma trop parce que amoon naa ci perte amoon ci perte bu bëri boo xam ni xam nga boo boo organiser sa programme fay fay ñi nga war a fay ñëpp fay affiche fay dépenser xaalis bëri yëpp répétition nga dépenser peut-être boo xam ñaata somme la quoi mu war a nekk suba pour nga récupérer sa xaalis ñu ne la amatul ça veut dire li ngay li nga investir woon lépp ay euh, chuté quoi mais mais sant yàlla rek peut-être hmm, yàlla noonu la ko bëggee woon peut-être. bu yàkkee lii dina indi leneen mais ñu ngi ñu ngi liggéey parce que lu metti moom lu metti góor lay dal peut-être luy ñëw luy ñëw beneen yoon dàq incha allah. Voilà, euh, je rappelle que euh, c'était votre émission euh, hebdomadaire Hebdo Culture euh, Tay nañu doon dalal fii Leka fay daanelee suñu waxtaan jeex na li ñu cëraloon ci ay waxtu jeex na tàkk euh, lu ma la waroon laaj xëy peut-être laaju ma la ko loo ci bëgg doli. waroon nga ma bay ma naan lo paré de. Na naan ba paré. fi mooy sen direct <laughs> yow defal lu la saf. nga ma bàyyi ma naan papi papi war nga papi waron nga wax moom war nga ko piis sax mu bàyyi ma naan hmm? ma dem bay naan mu jëlaat ma non jusque di jusque di di contane rek nekk di contane ci ci defat sortie bi parce que. am si namoon nañ ko quand même. waaw namoon nañ ma trop wa ñom nee dañu xam ne ma yeb man lu ne lañ may vocal ay nekkal di télé di malestiko lu ne lañ may wax. Mm. waye comme comme mais non la ne lay artiste dafa wara am dafa wara am tias te cas bi mu ngi fi. melastiku bi lañ namoon léegi xam naa gis nañ ci ba doyal. tey moom dinañ doyal. <laughs> tey dañ doyal tey di ngeen doyal ci melastiku incha allah bon c'est des gens kontaan tamit kontaan ci yow nga nekk sama sama jigéen ju baax waaw jàmbaar macha allah hmm, di remercier ñëpp waaw papi mami ak ñi fi toog ñëpp sama benn copain bi Demba waaw ne leen waa liggéey baa ngi ci kanam lii début bi la rek peut-être dinañ dajewaat feneen foo xam ne incha allah. Hmm, dal nañ yàlla may euh, ñu yegg ci jàmm rek te def kook suñu sago Diana Tall euh, ni mu ko waxee euh, léegi nii rek noonu la amee Lecka di artiste bu nga xamante ni bu talentueux ngeen bàyyi ko xel euh, moom nag lañ ci émission Hebdo Culture ñu amoon mbégte di leen ko waat comme d'habitude semaine bu nekk ngeen koy am filé ci direct point com ñuy remercier nag staff technique bi nga xamante ni lañ ci àndaloon ci caméra bi Papi caméra bi et montage bi également Cheikh pour la coordination Mami Mangara pour la coordination di leen remercier di leen jox dig vendredi Challah. allah ci émission Hebdo Culture